Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké wéetal nga nu Serigne Saliou Mbacké wéetal nga nu sa dem gi ay sa dem gi sa dem ga sa dem gi ay sa dem gi sa dem ga sa dem ga sa dem ga sa dem gi tax na ñëpp jooy nawet bi sax du ko fi tooy nawet bi sax du ko fi tooy Motori boy. Loolu ak mu war. Motori boy. Loolu ak mu war. Motori boy ay sëriñ Sadio Mbacke besul xaram bi defal naa batinan. Rubana mabalaw bi Musa ànd ak Sëriñ Tuba. Jabba gosa la ilaha illallah. Doole ba fal fal ngërëmoo ngërëmoo.

daal jégalu bu baax maam Goro léegi yaa ngi baax yëpp ci bés bi wax dëgg yàlla ñaanal ñëpp yàlla am jàmm ak seen xase ñu ngi jégalu bu baax alu xase yëpp ñu ngi di ziar sëñ xanaa sëñ Birame ak sëriñ gaa ñëpp rek laay di ziar ñu ngi di ziar bu wér-wér ñu ngi jëf jërëjëf. ولكل مسلمان نور الذي أجب أحلى سلمان للمسلمين ولكل مسلمان نور الذي أشبع ظلمان حم الذين في الجنان يحلدون وهم بما يشرعهم مغلدون منام توحد بالاستلاد والكل بالبشار ذو الغلاب رجاءهم محقق وملك في عبد الملا يرى ملك وأسلم معاه والتصل لوجه باخ حمعاه هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأجمان مني له عن حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى عبد الشكور فرحت جملة من المباهي لمن كمانية شو النباهي أسكن وخاد لي حبدالا كما كفاني حرب والجدالا سبحانه هو الكريم وحميد وكل من لم يحوني فهو كمين فهيم من لله يوجه الدرر على الذي في بكفاني الحرر جزاء من جل عن المثال لغاد ما غاب عن الأنساب زلباي براد المختار ليس الدهبا إلى علاما بالنكال يهفى للمستوى وجهته ما قد زرفا لغينا إبليس وهو انصرفا هدمت باتلا بحق فطأق والإله كهز سقيطاق ملكت ربي مالكي كليتي حاله كعمل ونيتي ردت بالله وبالرسول من خالف الحق والانتشاني بلاني الله من شرك ومن كل نفاخ وسعادات الضمين برحني من حي نسب النبي صلى عليه بسلام منبي والذي لم أره خير ولا ولا في شيء غدا ولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلة له الكرام فرحت الأكرم تفريخا يظن بأنني غل وحب وخديم نو ختابي ومن أقدار ولسوانا وجهل غدارا آياتنا على الحبا فخلبوا واللي سوانا ساخرين الخلب تسليم باق خاد لي صوابا على الذي أورثني شبابا على الذي طلب كوني الخديم نو سلام آسل برية القديم لمن الله كلية عبادة حمدي ومن غالفني عبادة ملك الذي ليس له باهي لغاد مهاب عن المباهي نجاني الحليم والخبير وجاد الواسع والكبير فرخت الجميل نحم نافع أخلاني الملك وهو رافع شيخ مغاري لمن حبلنا مدرة من يخود منها ملكا الملك والمليك والمالك الذي لا تملك حجرا كبيرا وشبابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاه هجر الذي ما حل لا ينفض وسلل وما اغترى نفض خدمة غير العالمين أحمد علي تسليما كريم حمدا فرغت القلب والنفسي يبا وبمكاري لغير صبر يسر خير العالمين الخلم علي تسليما مزيل العلم للمستوى للمستوى للمستوى للمستوى وجهت مالي خادا نبغا بلا مدرة فانخادا هو شبيه وهو سجاه بما سمي والعجاء محمد صلى عليه الله في الآل وشعابه ومن والاه ما بلغ الله وما الأمراض وبرداه تنحد للأغراض نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيب ربي خط له كليتي في علني وسري وهو لي غادا ولني ربعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أراد تبديله ربعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساخ كل من فنن هو النبي والرسول والخليل وهو الغبيب ويكسر الخليل تسليم باخ خاد لي صوابا على الذي أورثني صوابا على الذي تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي هو الرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامين كريم سمدي يا الله يا غادر يا مقتدر يا من إلي يجود يبتدر ناجيتك اليوم وخبل اليوم ولجعلت جعلت فطر فوق صومي جد بز الخشيد ساكرا لك بي وخبل لي خد فضلك زد الغزيدتي جعي سكورا ولم تزل يا مالك شكورا أكرمتني إكرام من ما شاف وكل ما أردت من كربان أخديتني يا ربي من لدنك شكرا من فردي دعانك باركت لي يا في الغروب وخيرا وجغته بالمغرب ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبشيرا وتكريما أهديتني ما قلبه عنسى كلما مدى من الضر موت سلما كافاني من مال لواكو أن أخن بمال غير ساخة كل من جوان أكرمني بقل هو أحد ربي ولم يكن لواكو أن ناجاني الله مقرب شماتنا ناجيا بكفاني الكمن وجعل الأكرم أنفع الكرم والدرري بخيرات للسلام أسأل الله أسأل الله كونتي الخسيدة عارعة لحظة المفيدة يا خيوم يا خيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام أنا الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتخبز الكلام منا على خارج الخراف بما يخوف ظن من مخروف للناس بالغروف خالد رباه يا من كفاه ذا الحرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا نجاك عبدك القديم سلا مسلما ولا مستغزي الخلا جينا كجوي خليفه tax ma muur leerug bi diw yow xamal sëriñ Saalihu jooy naa ko jooyu hamidtu rabbal alamin ceddu gu alal amin dëg dëg si xaadimu rasul ku dig murid kaay jooy la ma kaay jooy la sunu sang nëbbu naa fu sunu sang ba yaumal khiyam la yow hamal serintuba. Sëriñ Tuuba di dan rahmatan wa barakatan ya, ya, ya allah badi xarit na dunya ma fi xaajami Sëriñ sari bakke yàlla yàlla yang ay leeram Sëriñ Taxaw yàlla fi yàgg lool ak wala ak Cheikh ñoo ngi bu baax ci njàng mi sooxe waaye ku dégg njàng mi xam ne yéen rek la ñu demee waaye mën di matalewu ko bu ko defee rek danay yemale foofu suñu kàddu di joxe ay kàddu cant jëmale ko suma xarit bi di sëñ Fallou Faye di ko ñaanal moom lépp loo xamante ni def na ko ci bis bi na ko sëriñ bi ful defal ko ay xéewal ak i ngëneel ba mbooleem yéene gi nga xamante ne yéene na ko liggéey ko Sëñ Tuubaa ci xasaayit yi yàlla defal ko lu kawe jortam na ngi ziar sunu mag yi jànkatu xasaayit yi fi teew daa fekk ne rek duñ mën a ñëpp waaye buñ ci jiitalee Serigne Ndiaye xasaayit rek dina matale lépp barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba wa آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم زن إلهي بالمناجحات من لا يزال قوتي وأولياء خسدتا خسدتا خسدتي خسدتي فاقت خسدتي فاقت فاقت فاقت فاقت خسر الكرام فقصى الكرام فاقت خسر الكرام خيرا فاخر ولتخون أبدا خير المرام هديتي مهددة كل ملك قال مناسحا وصاح الملك ما تواجه نزار الله لي بلا إله لي بلا إله لا إله إلا الله يسار

عندي زرد أبدا أساكرمك في دنيا دنيا أخراك فنم على صدقي والإخلاص متعدا في سر والجهل تجلما تجلما

hört det här وانصر لنا وداعي حمدا فوق سيدنا محمد محمد فوق سيدنا محمد محمد سيدنا غالي أزكى سلامي ربنا ساقيا ومن مجيب داحي وسقى وسقي إليه ما من النار خدم الزني وتأرى المحضر يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فضلنا يا حي غير وزنك رماح ربي رمضان يا الله يا الله

أسافي أنفي سواك ما كان داعي وتؤمن بالتلائي وانسي النفر مكان ضري وانسي الخير مكان سري وانسي العلم مكان نوري وانسي الجود مكان فقري وانسي الخنا مكان فقرا وانسي الفقر مكان هدوء وانسي جميع حل نسينا عجله خوفا وزاجرا وناجح وحافح وجب إبراد واعز ذكر سمح وإنهم رزاح مخلد يمسكوا يمسكوا يمسكوا لم يكن بك أحد وإنما أولادهم لا تقدموا وما كان يسأل ليست هو أمر ليست تتمال تتميل لا زواج لا زواج لا زواج لا زواج من هنا إلى الخداع لكنما النصر جوارح عبدهما لك بين خبائه فأتوا خسر بما لا يخسر ولهما

والمؤمنات والمؤمنات في خداح قلت الجميع مسنا في ارتقاح والمسلمات بالنار امتقاح قلت الجميع كل ما يحاولون قلت الجميع حامل المخلصين قلت الجميع مغسل ساكتين قلت الجميع سيد الناس حب قلت الجميع صادقين فايزين وقرنا وقرنا وهب لنا مكارم الأخلاق وهب لنا مكارم الأخلاق وهب لنا مكارم الأخلاق ما دعاه من بلاد غاخم وجعل شكرنا يقل الكبير وانت كبيرنا انت صغير والناس من ايضا زاده الله زباد الفيدم يا مهير ربنا كما زفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والمرسلات والحمد لله رب العالمين لله والحمد لله sama xarit la sama rakk la li may wax nii nag wóor na sëñ Moustapha Mbacke di toog du ma ci def kenn seere jëmmam yi laa ko ndax tollu woon naa jamono ñoo xam ne daan dañu jógee suñu kër lu toll ci biir yi jëm kaw di dem kër sëñ Moustapha Mbacke daan na ma fekk sama lu toll ci ay waxtu deux heures bu dugg see maraax lay avant mu yëg avant mu yëkkati néeg yi dina yëkkati maraaxi ba daaneel ko ba doog a ay mbir yu doy waar sax xëy na sëñ Moustapha Mbacke ne yow moom lañ ci te lu ab seede waaye kàddu gi sax daa mel ko ba noppi waaye lépp loo ñuy jaay te jaay ñoo ko taal rek mënuñoo sax di ziar bu baax sëñ Moustapha Mbacke bu baax di ziar sëñ Abdou suñu mag suñu lépp moom nga xam ne moom dañuy nemmeeku saa yu su ne ñu ngi koy ñaar si rek lépp loo xam ne ñu ngi koy bëgg rek saa bu reporté lu ko suñu rakk jëlee si bu baax jërëjëf. jërëjëf sëñ Diallo dëgg fa yàlla bëgg ma sax. jëlee ko kàddu léegi waaye ginnaaw bi ma ziyaare mbooloo bi fi teew yëpp maa ngi seede ni moom mii xar-xar bi mu doon wax nii suñu borom daa mu ne ci di sant suñu borom bu baax suñu borom dogal ñu ciy toll ñu jëloon ci moom alal ju bari mu toll ci ay millions yu fa yàlla loolu gàllankoor liggéeyam waaye mu ñëw taxaw néegam di ko jàngal xasaay day fàtte lépp ak sëñ Touba ñu daan ñëw di ànd suñ bi di ko dalal di ko dalal di ko defal ba tey suñ dogal mu génn ci xat-xat yooyu. dañ ma tudd di dama woo këram ma ñëw mu yëkkati teraanga yu bari jox ma ko yëkkati ay bubbu jasneer yu ñu ay garam bubbu barki suñ Tuubaa bëggul sax ma waaye faw ma wax ndax ci tawat la nekk nii bis bi moo tax ma jóg sax tamit tawat waaye. sama xol seet na lool barke sëñ Tuubaa. sëñ Tuubaa wala morom. yow sama mag nga sama xarit la. sëñ Tuubaa wala morom maa ngi lay ñaanal suñu mu guddal sa fan te gàttalal la. sëñ Tuubaa wala morom maa ngi lay barke sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf tam. jërëjëf Serigne Pape Thiam sant nañ la bu baax gërëm la ak yow leen ak asaar bi nga xamante ni dafa bàyyi koo ba ñaar moom it lañ ko yabal nuyu nuyu jullit bi nuyu bokki jullitam di leen nuyu nuyu taalibe buy nuyu ay bokki taalibe la wax yaara leen bu ñu duggee ci sunu xol aw yiw ak tawfeex te di ko sàkk ci yéen ñoo ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké di ko siyaara bu baax di ko ndokkeel di ko ñaanal si borom tabaraka wa taala mu defal ko gudd fan ak wér ba yéene jim am ci liggéeyal maamam suñ borom kattanal ko bammal ko na ko bëggee ci dara ji Sëriñ Tuubaa waaye di nuyu bu baax kilifa yi teew ci jataay bi di sunuy magi taalibe di sunuy bàyyi di sëriñ maam Seex Cuun ak sëriñ ma jéy jatara ak mbooleem ñi nga xam ne teew nañu ci jataay bi kenn ku ne ñoo ngi wàcc ba tolloog moom jox ko suñu ñaari loxo nuyu ko nuyu wu sell te teg di nuyu jàngit waaye di nuyu Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne nag moo woote jataay bii di jataay bu mag ndax yonente bi sallallahu alayhi wa daa wax ne bépp jataay bu nuy fàttalikoo yàlla ak yonenteem malaaka yërmande yi dañ fay wàcc di taataan ittey nit ñi ak di faj seen am na beneen artiste boo xam ne jëpp jëm du jug jëm ci bërëb te yàlla dong mu ko fa mu toog ci bërëb ba diir bu yàgg ñu waxtaanee fa lenn lu jëm ci diineem wala lu jëm ci addunaam ci lu koy yéwénal mu jàpp ci dara li fii wala li ñuy def ci xolam suñu borom du ko bindal bàkkaar mukk kon nga dajale mbooloo ñu yëkkati xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xam ne daf ko sonne lool ci digganteem ak boroomam coono yi mu daj ci lislaam liggéey bi mu liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak jariñ gi mu jariñ jullit ñi ak tumuranke gi mu tumuranke ci ñu génnee ko am réewam génnee ko ak njabootam tas ay këram ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu liggéey liggéey bu yéeme bu rëy ci ay coona ci lépp waaye mu wax ne karaamaam dëgg-dëgg mooy mbindum loxoom nga xam ne xasida yi day yar nit di ko di ko di ko tërbiya bépp sikk bu nekk ci xolam mu di ko dindi ak xasida gum mën doon nag ci xasida yi Sëñ Tuubaa donte borom xam-xam yi xaaj nañ leen ñetti xaaj waaye xasida gum ci mën a doon nit ki jàpp ko ngir jëmmi yàlla ak bàyyi xel ki ko bind ci digganteem ak boromam ak wax gim ci wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak daraja ji ko suñ borom defal tabaraka wa taala mu am lenn lu mu ci nekk li ci biir xasida yi loola nga jàpp xasida gi ngir jëmmi yàlla di ko jàng ak xasida gum mën a doon loola dana la wammat ba yéege la dëgg dëgg ci maqaama yi gën a kawe ci maqaama yi ca loolu feeñ na njëreem amna na kenn ci talibi seigne touba yi ku dox ci njëriñ seigne touba xol ko yim ko ci ay daraja yu ko yim amé mu wo ko bam ñew mu laaj ko analoy def ndax da ngay naafila guddi mu ne ko dedet ndax da ngay yendo wor mu ne ko dedet mu ne ko analan ngay def nak mu ne tek ba yag mu ne ko man di xam ma lenn lumay def dina jang bis bu set jës nee na suñ borom tabaraka wa taala xamal ko ne ko jës bu bi muy jàng moo koy yéege ci maqaama yi gën a kawe xam ngeen ne jës bu sëñ Tuubaa melal yonente bi salaa salaam la tagg ko ci julli ci moom ay xeeti julli yoo xam ne te xam ngeen ne li gën a jege li gën a jegeel ab jaam boroomam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa nee na julli ci yonente bi salaa salaam bépp jaam bu ko saxoo te bay yiwu ko dana dem ba àgg ci yàlla borom xam-xam yi tasawuf yëpp d'accord nañ ne wépp yoon wu nit jaar am na ay gàllankoor ba mu des julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi mu sóoboo yoon woowu ci la amee lépp bi muy wax ne génnee nañ ma samay kër tas nañ sama njaboot tasaare samay kër waaye lam ca teg daf ne ngir bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nag bi mu àggee ci boroomam suñu borom tabaraka wa taala moo joxoñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo wax ne man yàlla moo ma tegtal yonente bi dallani allahu ala xayril wara wa xaadani xayril wara li sur wara nee na man yonente bi salaa sallam suñu borom tabaraka wa taala moo ma ko tegtal ndax damaa dem ba ca yaay la damaa jaar ci alquran ba àgg ci suñu borom suñu borom ne ma fii képp ku fi ñëw te yonente bi indi wula fi du la jox dara daal di may tegtal yonente ci diggante boobu ci la taalif jës bu mu waahibu ngir melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gën ngaa rafet ay melokaan ba waxal boppam nag ci diggante boobu ne madahahu xadimahu madaan yafuux wa huwa xalifatu lahu wa huwa rafet nee na tagg naa ko ci ay bërëb yu ko kenn ñi muy wut a tagg tagg naa ko ci ay bërëb yu wéet yoo xamante ni bii ku fa wéetoon noo def ba jógee fa ngay lijjanti ma defa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli naa ci moom ay julli yoo xam ne boo ko tasaare woon leeri julli yi ci asamaan yi mu fees ko dell ba yonent bi ci jëmmam donduloo ma boppam man sëñ Tuubaa may moom muy man moo tax mu ne képp koo xam ne weddi nga ma boo demoon ca Kaaba ga di ko wër yàlla du la gërëm yonent bi salaa salaam du la sant kon Cheikh Mamadou Fadal boo wootee fii ñuy jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi ba noppi nag ngay ko ay nit ñu génn àdduna wallahi loolu lu màgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu leen gàccaal seen waajur yi génn àdduna bu leen leen doya dal mais nga daa am ko dend ak moom laaj ko ne ko waaw nan la ñuy doya dalee ku génn àdduna mu a jëpp jëmm ju faatu altine ju jot daañu teewal ci kanamam ay jëfi njabootam lépp lu doomam def wala ab sëtam wala ku bokk ci moom daañu ko teewal ca bàmmeel ya bu dee jëf ju rafet mu siggi puukarewu ci mbokki néewam yam fa nekkal waaye bu dee jëf ju ñaaw nag mu sëgg du siggi mukk ngir kersa kon képp ko am sa waajur wu faatu wala sa mbokk war nga koy orma. كتاب الله وردي وابتغي بترتيل ما في قزار الاباء علي لربي دين ترتيل آيه وإني إلى قومي أو بوبي أبا لربي عمدي ثم سكري بلانتان على جعل صدري زرفاتي الباب كي أميل لها وأعول إلى قلبي في الحكيات وخاتبني بما يدور لحزبتها لكن علمتم بها أبداننا بنور أبدانها يدري سراجا rawaatil xalbu taa كريم حن عليه ولتقم الإمار سل عليه في جميع الآل مع السلام واستجب سؤالي

وسبي من جاد بالمال يا غير منزل الوغاب عبر وغير منزل عباد أسمر يا غير منزل وغاب عبر وغير منزل عباد أسمر خير الأنبياء من الليل خبز الربيع كما بك استعز من سيتعان ونور القلوب كالأوتان وفي وفي بارة وفي سابة وآلي ومتري سابة وانثر علينا بركات البسملة وتغننا عن بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار سل وسلم سرمدا عليه في آله سل وسلم سرمدا سل وسلم سرمدا وسلي وسلي سرمدا عليه بسلام كما إليه خطى عبد الكلام kitaawu si أحمر وسيني والنيم سرورا كمرا وهب لنا بلاي في الدارين ما يرفع علينا والنارين وهب لنا بسيني سعادة في الآل والآت وغرقادة وهب لنا بميمي ملكا يسر وبيسير آننا ماسر الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والآل هذا وإن اليوم ذو توسل لو بأسماء ذوي تفضل فقلت يا غريب يا مجيب بنوح وبإبراهيم لاغفر ذنوبي واغفرني رجيما وكن بموسى وبجاي عيسى وقيني دنيا ورابوزا وبمحمد كسب رسول الله عليه خير الصلوات الله وبمحمد رسول الله عليه خير الصلوات الله عليهم ثم عليهم ليأبت إيمانا فارسابا الإسلام والإحسان بحرمة سيدنا فتنتي من كل ما أخاف من فتني وبأبي بيتة المعارف إلى الجناب وفي عني ما يبيد يا أخي عبد الله نجل عمي أي ولد عباس كسرمي يا أخي عبد الله نجل عمرا عن كتابا ما يجر دقرا وبابن مسعود وجاء من سلام خلبا ودروين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وعمزة حنيف كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم تائر شفي الزوائر يا مادام بحرمة طيب إبراهيم أدم علي البسر وتكريما بجاه فاطمة وعبت نفسي عن كل ما يجرني نفسي بجاي فاطمة عبت نفسي عن كل ما يجرني نفسي وفي رقية وزينب فيني أتر والحجاب كل زمني وهمني دنيا وأخرى والعمل والعبادة بلا سنين بسري أبلي الوراء والانصراخ من هوايا والبداء وبي أبي هريرة وبي بلال وبي شعيب ربي جلي بالنوال وتعت قبل وصفني من داعي سرا وجهرا بأبي درداي بحرمة المقداد ثم خالدي وبي زبير أرني مقاصدي لحرمة المقدار ثم خالدي وبي زبير أرني مقاصدي وبي أمير المؤمنين أمراء إني مكرم وسخا وخيرا باقي أيدي المجاهدين عليم الذي أنا ديما باقي ثانية وباقي عروة زدني تمسكا بمصاحرة بحرمة القاسم ثم خارجا زدني قبل متبع مناهجا وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناهي وبسليمان خلي كيد لئيم وكيد خير خديجة الحبيبة آه. في العلم والأدب ربي وأمن بأمنا خديجة في الأمن في العلم والأدب ربي وأمن بأمنا عائشة خني يما يدرني في الأرضين والسماء بأمنا حسد قلبي وبينما تجر سوءا ولك زينب زي ما زار مني وما بدل وجعلني وزر لمالك وسافي وابي حنفة ومجلس تجري بجاي جبريل تجد سؤالي وقلحم مبلغ رجالي بجاي ميكائيل فمين ما والنبي يجل من رقيس كرما بجاي فمني اسمع وتكفني أول يوم الخمة بجاي عزرائيل كل عجميل طول حياتي وكذا بعد قليل وجل توسل لمن يدعو به سعادة داري وفي قلبي وليجو والذي دعاني لنظمي بلمن وردواني وبسعادتي وبما يا عن جملة الأذى والعناية وبنجاح سكرات الموت ربي والإسعاف وبالمسارات وبسرور عند مماتنا وفي النزور وسلم وسلم على النبي وآله مع سراب النجوم وفي لوالدي وفي للجميع أهل وجملتي سابها سمين وفي لكل ذي تعلق بها واخر عن سعادتي يا ربي والدبنا وخونا وكلنا حسن الختام ربنا وسلم على النبي وسلم واغني به حاجة كل مسلم جاب جدام دق جاب يلا tudd turam mooy ngi tudd yàlla jàpp ci daam mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy ngën gi tudd yàlla borom ma àgg ku bëgg a sell del si kar turam wi xalam meloom wi waliyu kaamil dey turam wi ma di ko ba janoom meloom wax ja wax ko mu wax ma moomit la ma wax ma yoko waaye du tee ma naa ko nam ma naa la borom Tuuba yaakaar ji bëgg naa la waaye du tee ma naa ko nam ma naa la borom Tuuba yaakaar ji bëgg naa la waaye du tee ma naan ko nam ma naa la man bëgg naa la waaye du tee man aw ko namm naa la borom Tuuba yaakaar yi man bëgg naa la waaye du tee man aw ko namm naa abençoe tua.